li ma mooy man métti wu sax parce que je comprends un peu je connais société sénégalaise. Mm. cest à société Sénégal kilifa gu la dàq a fen kilifa gu la dàq gën a tappale moo la ëpp mbooloo parce que Sénégal ñun ñoo bëgg kilifa guy fen ñun ñoo bëgg kuy fen ñoo bëgg di fenante ah, ñoo bëgg fen wunu neex ñun moonu gënal dëgg waaye Ousmane Sonko bu ñu nekkoon ci réew mu normal ay waxam kenn waxatu ko léegi léegi li ngay li ngay wax ni est-ce que valable tuuti pour tamit Adji Sarr parce que bu ñu xoolee Adji Sarr dafa wax lii ñu xëy gis fi ay audio yoo xamante ne fuité na xam nga moom mu siy wax di expliquer que ni mbir mi euh, luñ ko sant la et tout ñu ñu ñu ñu déglu audio yi audio yi fuité bi ko bi ko si procureur wooye mu ne dafa doon foo a testé euh, lim jiñ Sonko ne daf ko violé xam man du ma ci wax viol ndem viol am na ñaar ñi rek xam ñett mu ah. yàlla subhanahu wa taala Ousmane Sonko a Issa mais rek te benn loolu bi ci des nag mooy euh, l'islam hmm. dafa tere jullit hmm. bu ñu jiiñee moroomu jullitam tuuma yu tol noonu hmm. mu di ko di moo tax man mbirum Adji Sarr li Adji Sarr wax Ousmane Sonko dama ci maandu contre ñun li nu Ousmane Sonko wax ñun waa Sénégal man loolu moom intéressé lim nu jëkk a wax mooy xaw ma Adji Sarr mosuma fa dem mhm. wax koy xaritam wax ko ki ne moo def sëriñam wax ko waa responsable parti ñu toogub diir mu dindi ko ci page Facebook am daal di bind ne mas naa dem daal di commencé wutal dem gi aw lay parce que nag góor guy dem ci xale yu jigéen bañ jiñ ko fa bu yoon foog mu wut ba mu nangu faa euh, dem gi aw lay mu ne damaa feebaroon dama am douleur d'accord daam douleur lombaire day faju waaw lu tax mu bàyyi cabinet kinésithérapie bi nekk ci wetu këram lu tax mu romb fa suma gi nga xam ne bëkk dem biñ ko bi mu ñi di ko gis am na beneen clinique bu ne ci biir lu tax mu bàyyi fa ñett yooyu dem di seeti ñaari xale yu jigéen ñoo xam ne xaal magal ñoo xam ne ñoo xam ne ñoo xam ne mënuñoo faj non non parce que moom nee sax dañ ne ko boo ko opéré sax mën faatu opp hmm. ju wopp mel noonu yow mën nga ko yow yow da nga mën ngaa bés boobu. jàngu ma ko ah, mën waaw ah, jàngu ko. déedéet yow sa jabar mën na ko man sa jabar mën na ko. <laughs> man de waaw léegi bu fekkee day bés lu bés daal mën naa ko ak maase man nga bés waaw léegi nag jàpp naa loo mën a bés nag mhm. ñaari jabar Ousmane Sonko yi ñoo la dàqa bés parce que ñoo la gën a ponkale lu tax mu bàyyi leen fa dem ci ay xale yu jigéen ju mu naa day faju day fen mhm. c'est-à-dire xam nga foofu la foofu dem ci li ñu ci war a jàngat ma mooy Ousmane Sonko du as góor ah. xam lu tax gis nga ajaarama xam nga rek ajaarama mhm. as góor bu juumee day nangu ne juum na gis nga kenn rek moo dul kenn rek mu dul mu yàlla subhanahu wa taala mm. Ousmane mu moo mujj nar mooy mu jëkk du jëkk a juum jigéen du mujj a juum jigéen gis nga nun ñi def politique yaar yi dafa nekk suñuy nattu yoo xam ne toujours danoo mën a gaaral mm-hmm. muy jigéen ak xaalis mm-hmm. Abdoulaye Wade dañu ko daan wax toujours bi ñu nekkee étudiant di ko seet mu ne bu ngeen def politique ngeen may na ngeen aar seen bopp mm-hmm. ci jigéen ak xaalis Ousmane Sonko nag daa xay na daa aarut boppam ci jigéen bi ci des mooy daa am sut maanaam dama jàpp ne sax bu doon doxaan doxaanu ngaaka la. doxaanu ngaaka du doxaanu ngaaka mooy mooy dem salon de beauté yooyu di fa di fa doxaan mooy doxaan bu kilifa kay. mais est ne bu ko doon doxaan. waaw doxaan day doxaan moromam. bu si ñoom ñaar ñëpp am gàcce. Hmm. waaye xam nga ne ki mu ki mu ko seqal wax dëgg yàlla mel na ne yëf yëf feeñ nekkul problème am moo tax nit buy àndee ànd day ànd ak nawleem maanaam li ñu naan mukkee ka mukke mm. ñoo mën a ànd waaye boo xa magum jëmm ànd di kilifa di dem ci dugg yu xale yi muy wax lu bon ci yow xam nga ne bu doon koo xam ne day kilifa du wax loolu encore une fois vraiment cette affaire là ah, ah, Yarama ah, waaw yéen journalistes yi <laughs> weg leen Sénégalais yi nañu nangu li wax leen ne leen Ousmane Sonko la mu doon la mu wax ca ne da doon faju ji day doon fen mm. lim ne yoroon na document bu takkal ma mbay ñang da fen fenn yooyu nag boo ko boolee mooy indi musiba mi dal Sénégal ba fukki nit ak ñeent faatu 2021 fukki nit ak juróom-benn faatu 2023 ay milliards yàqu fi te yenn jëma ko waral ak i fenam mooy Ousmane Sonko. waaw ah, mais nag bi tamit dañu jël lépp ko ci kaw Ousmane Sonko parce que tamit gis nañu ne affrontement moom bu amee xeex la entre ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre yi ak euh, population. xam nga yow ngay wax sam xel man da ngay waxe yoon. waaw xaaral maa mm-hmm. yoon daf ne. Mm-hmm. boo wootee ndaje. Mm-hmm.

manifestation yi mais loi moo ne loi moo ne boo lu ca jóge ci musiba yow mi ko wootee yow lañ koy topp. loolu loi bi ko wax man waxuma ko c'est la république du Sénégal bu fekkee nag da ngaa gëmul kon mi ngi noonu ah, de. ah kay ko kay ma dugal ci loolu. yow yaa ngi bëgg a teg loi bi ci suuf. de di non mukk mukk teguma loi si ah, suuf. dama wax ni rek. ah juboon nañ ñu ci leneen <laughs> ñu gis ne ba tey ñu ngi wax ni dafa am euh, ñoo xamante ne dañoo nekk biir APR waaye dañuy dañuy lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñooy opposition bi ndax keroog bi nga xamante ne euh, kàddu président de la république jib na gis nañu Euh, ñi yenn si ay témoignages yu ñu jël euh, foofee ci euh, permanence APR bi am na ñu yëkkati kàddu yu mel noonu di wax ne ñooñu ñoo yàqal président Macky Sall ñi nga xamante ne dañuy dem di jaxasoo ak ñi nga xam ne ñooy opposition bi nekk ay top en quelque sorte. Ah. tey naka nga naka nga ne mm-hmm. dégg nañ ko fan yi ñu naan waaw. Mm-hmm. le téléphone de Sonko on parle. Mm-hmm. xam ñu ngi koy wax ah man ne dama jàpp fekkee les téléphones de Sonko dañu wax. Mm. Ah, ba gars yi am ci information yoo xam ne dafa concerné ñu bokk ci nguur gi. Mm. Macky Sall amel na ak Sénégal jëlee leen fi lu mu gën a gaaw. Mm. Mm-hmm. parce que nag jaarama. Mm-hmm. nit mënuñu laa mm-hmm. fal président public. nga pal ay ministre Sénégal yi di xaar ci yow bu liggéey say nit di di di war war gu toll noonu nga xam ko noppi ci. loolu c'est un problème pour la la sécurité du Sénégal. kon encore une fois loolu moom dégg na li nga ko dégg rek laa ko dégg xaw ma ci mm-hmm. leneen. Mm-hmm. waaye su fekkee am na. te mm-hmm. gis nañ ñu xam nañ ñoo xam ne dañoo àndoon moom ci liggéey bi. ba pare nag di lëkkaloog Sonko. loolu moom lu garaaw a garaaw xam nga bu ñu doon lëkkaloo ak Abdou Mbaye ak yooyu sax du ma intéressé waaye euh, terroriste nit kuy def coup d'état kuy woote fitna ku mën a nekk ci nguur ànd ak moom wax dëgg yàlla warkat bu mag na loolu nag président de lu mu gën a gaaw moo ci war a moo ko war a leeral ndax am na wala amul bu amee ña ca bokk non seulement mu génne leen ci gouvernement mais ñu ñu yóbbu leen tribunal mm. parce que ñooñu ce qu'ils ont fait c'est de la trahison à la république mm. ñooñu dañoo leen war a topp. dañ leen war a topp si yoon. Mm-hmm.